ñi tey dafa dokk ci bés yi nga xam ne bisi suñu boroom la subhaanahu wa taala yu màgg yi muy bés yi nga xamee ne ñi nga xam ne ñooy aj ca baytullahi alxaraam ñu nga ca seeni nusuk di joxe li nga xam ne mooy seen farata yàlla subhaanahu wa taala dogal leen bés yooyu ñu war ko ca uyu ngir jaamu ko ca jooxe li nga xam ne mooy màndargay diine yi masaa borom ba tëral ci bés yooyu foofa yàlla sunu borom ba subhaanahu wa taala nag sàkkal ñu ñun ña demul lu demee noonu muy iid bi nga xamee ne tey mooy iidul adha nga xam ne ñoom itam moom bés bu boobu bu ñëwee ñoom ci la ñuy rendi seen had yi ñun itam ñu jox ñu lu diiroog loolu muy iidul adha muy bésu tabaski feetu tabaski nga xam ne yàllaa ko tàggatal jullit ñi mu doon nag sunna bu yàgg di sunna seydina mawlana ibrahim alayhi salaatu wa salaam ba nga xamee ne boroomam subhaanahu wa taala digaloon na ko mu rendi doomam ja ismail alayhi salaatu wa salaam ci xissa boo xam ne mu ngi ci alquranul karim daanaka jullit ñépp dégg nañu ko ak li mu làmb ci li nga xam ne moo di ay waare ci diggante baay ak doom ku ci nekk di nituk yàlla ku ci nekk it di jëfe ndigalal sunu borom subhanahu wa taala te doo ca seet looy tànn ku ci nekk it muñ la nga xamee ne moom la la sa borom nattoo kii dund na ba am at yamu am cig mage ba dem ba yaakaaratul doom yàlla sama borom ba subhanahu wa taala ci kantanam yàlla andil ko doom ci waxtu woo xam ne dem na ba doon mag moo xamee ne dem na ba naagu doom waaye nag xam na ne kanta nag suñu borom weesu na foofu yërmande suñu borom weesu na foofu yàlla suma borom ba andil ko doom nga xamee ne day sax ci xolam ndax mu ngi koy door a gis dem ba doom ji dëgër sama borom ba nattoo ka ngir mu rendi doomam jooju loolu bariyaana ku ñu ko nattoo yaakaar naa ne boobu nattu ca génn ndax diis gu mu diis ca baay ba ko war a def diis gu mu diis ca doom jam war ja ko war a def waaye la la ca jaaxal mooy ngëm ga baay ba àndal muñ ga baay ba àndal àndal ommatu ga baay ba àndal ngëm ga doom ji àndal muñ ga doom ji àndal wommatu ga doom ji àndal ñoom ñaar ñépp jëbbalu ci ndigalal borom bi subhaanahu wa taala ginnaaw ba yàlla wane baay ba di ibrahim alayhi wa salaam ne ko na nga rendi sa doom ndax ru'yal anbiyaa i xaq ku ne xam na ne yonente la ñuy tëdd di ko gis wax la dëgg looloo tax doom ja ne ko yaa abati fan maa tu'mar new ko yow sama li nga gént déedéet daf ko ne defal gisal ah defal li moom xam na ne yonent la muy tëdd yàlla di ko ko wan ndigal la gu jóge ci borom bi subhaanahu wa taala kon nag ci gàttal xissa boobu ëpp na lii ku ne xam na ni xissa bu yéeme la mën nañ caa jële lu bari ci yàlla gënal la lépp gënal la sa bopp gënal la sa ndey gënal la sa baay gënal la sa doom gënal la mbooleem li des ci mbindeef yi feeñ na foofu gaaw uyu yàlla jëbbalul yàlla feeñ na foofu sant yàlla ci la mu la wërsëgal xam ne li mu la jox ci moom la jóge ci moom lay dellu saa yi la ko laajee nga jébbal ko ko ci xol bu féex loola feeñ na ci xisa boobu kon nag bariyaana lu feeñ ci xisa boobu ci li gën jege sa bakken ci li nga gën bëgg ñu laaj la ka nga sacrifier ko te yàlla tax yaakaar naa ne loolu ñëpp mënu ko tiim sa doom di ko rendi metti na waaye nag ala kulli xaal lu rëy rëy la waaye ndigalal yàlla moo ko ëpp fuuf allahu akbar la ñu wax yàllaa gën a màgg lépp moo gën a rëy lépp kon nag mu Mamadou loolu ci boppam aha désëb tey day dekkalaat sunna boobu nga xamee ne ñaari yonente yu tedd yooyu ñoo ko séqoon rawatina bàyyi bañ ko yoonoon mooy Seydina Ibrahim alayhi salaatu wassalaam waaye nag sang bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam mu wootee feeñaat ci àddina saa borom ba digal ko dundalaat li nga xamee ne mooy sunna boobu yàlla yoonalaat ko ci moom ci alquranul karim yoonal ko ko ci sunna itam ba léegi ñu di ko def sama borom ba jalla wa ala moom bismillahi rahmani rahim inna aataynaaka alkawthar fa salli li rabbika wanhar inna shaani aka al abtar sama borom ba jalla wa ala ci saaru tedd woowu nga xamee ne dig na ko ca kaw kawsar la nga xamee ne moo nekk ci biir ñu bën nga kaa génn ci saar woowu mooy fa salli li rabbika wanhar ñu tudde ko wajhu dalil nga xam ne tey moom la ñuy génne ci biir dalil boobu ñu taxawal mooy salli li rabbik na nga jullil sa boroom xanaam salaatul ayit wanhar boo jullee ba noppi na nga loj sallallahu alayhi wa foofu sama borom ba digal na ko ko mu dellu ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam jëfe ko doxaa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi kabsayni amlahayni aqranayni zabaxahuma bi yadihi wa samma wa kabbar wa wadaa rijlahu ala sifaaxihima ci xadiisu anas ibnu malik radiallahu anhu nee ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tabaskee woon na de ci ñaari kuy waaw ñaari kuy yoo xam ne yu weex lañ waaye dañu toj ñuul maanaam ay ñuul ñuul ñu nga ca nee ne moo leen rendi ci loxal boppam nee ne itam mu ubba ko turu yàlla dal di kàbbar bismillahi allahu akbar jël tànkam ba dal di koy teg ca seen ah, ndoddee maanaam ca weti xar ma mu ci nekk mu jël tànkam teg ka ca ga ca wetu baat ba maanaam sifaa mooy jaanib kon li nga xamee ne mooy sunnaam sallallahu alayhi wa sallam sunna sumu jëfe la oo ci nit ñi kazalika na ko noonu ibnu omar wax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sax na Medina di tabaski fukki at mu tegale di ko tabaski ba boroomam jël ko sallallahu alayhi wa kon nag moom ci boppam noonu la ko dundale noonu la ñu soññee ñu dundal ko waaye itam ñu sellal ko jaamu gu mel noonu qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamina la sharika lah waxal ne sama julli bu mu mën a doon wa nusuki ak samak rendi wa mahyaaya sama dundoomaati samak dee lépp lillahi rabbil alamin ñel na yàlla rabbul alamin kay borom bi def defi la sharika la amul bokkaale kon lii ci bésëb tey ñu war a def bu ñu si dugal lu ci bokkul ndax day yàq yéene ji te yéene ji bu xësee yàqu sama borom ba delloonu ko ma umiru illa li yaabudullaha muxlisina lahu diin ba fa wax ja jeexe kon nag sellal googu nañ ko ci def te moytu lépp lu koy nëxal moytu aada yoo xamee ne yàlla suñu borom ba yoonalu ko ñu dugal ko ci bés bii ak ci suñu rendi ak yu mel noonu ginnaaw loolu sanga bu tedd bésub arafaat la taxawoon dal di wax ne i'lamu annama amwaalakum wa aaraadakum i'lamu annama dimaa'akum wa amwaalakum wa aaraadakum xaraamun alaykum ka xurmati yawmikum haada fi shahrikum haada fi baladikum haada nee ne bésab arafa la taxoon di wax sa xutbaam bu yaatu boobu na ngeen xam ne seeni deret seeni deret yéen jullit ñi nama dimaakum wa amwaalakum seeni alal wa araadakum seeni der xaraamun aleykum na ngeen xam ne araam na seen diggante tuurante deret araam na seen diggante jëlante alal araam na seen diggante ci lu dul yoon tilimalante ay der araam na seen diggante ci wax ak jëf ka xurmati yawmikum haza ni mu araami ci seen bésëb tey bii muy bésëb arafa fii sahrikum haza ci seen weeru tey wii nee itam fii baladikum haza si seen dëkk bi noonu lay yi ci yéen ba yowmal xiyaama looloo tax dañu war a ñoŋal sunuy deret ñoŋal sunuy alal maanaam sunuy bakken sunuy alal sunu xel sunuy der sunuy askan loolu lépp l'islam dafa ñëw ngir aar ko ñu dëkk ak daruriyaatul xams mu doon ñu ko fàttali bi ñu fi jógee nag doon nañu waxtaane ci lu jëm ci wàllu der ngir néeg yi daanaka yàqu na jalgati gi bari na tappalekat yi bari nañ kàccoor yi bari nañ saay-saay yi bari nañ nit ñi tàggoo nañ seen sago tàggook seen ngëm ñu ngi dugg ci néeg sëy yi di yàq-yàq mu réeréeréeré lu bari wax nañ ko fii jàpp naa ne ci korite gi amaana bu waxtu bu mayee ñu dis delluwaat ndax bésab tey dafa dafa xat waaye nag am na leneen loo xamee ne laxasu na ci bunte boobu ci tappalekat yi nga xamee ne ñu ngi ci biir néeg sëy jàmbur di yàq tanga sanga bu tedd bi sallallahu alayhi wa waxoon na ca téeréem ba de wal mar'atu tusalu an bayti zawjiha wa firaashiha du lan lañ waxoon dañu koy laaj ci néeg jëkkëram ak lal jëkkër na ko ottu na ko aar na aar boppam aar néeg ba aar lal ba aar alal ja ba nga xamee ne day ñoŋ du may benn kaccoor muy tegaf tànkam ca bunt ba waxuma laa nag muy toog sab lalam kon nag bokk na ci li nga xame ne mbokki jullit ñi lunt na tey ñu di ko def mu bari lool ci sunu biir la ca tëj boppa jaaxal la mooy ñiy faral di maye lan moo tax duñu koy gëstu lan moo tax duñu koy lijjanti mooy gaañi bariyaana tey jigéen ju ñuy ñëw di ko takk mu nekk ci biir iddam subhanallah mbokki jullit ñi idda yàlla moo ko dogal ñu war ko ko jaamoo dafa bokk bi nag umuri taabudiya ngir ñoŋal li nga xamee ne mooy àqu boroom kër gi ngir ñoŋal la desoon ca sëy ba desit ya ngirit ñu xam ndax biiru ndaw si mucc na walla déet ngir ñu moytu itam li nga xamee ne mooy jaxasooy askan yi ñu war ko koo jaamoo comme ni ñu koy jaamoo ci julli comme ni ñu koy jaamoo ci koor comme ni ñu koy jaamoo ci yeneen mbir yi yàlla sama boroom mi dogal sëy moo dogal teqalakoo ko nag dina am ci ñaari anam dina am ci waa ji faatu dina amit ci passé waaye dina amit ci ñu tas sëy bi muy fas waaye lu mu ci mën a doon nga xame ne sëy la boo xam ne idda war na ca bu boobaa bu ca yàlla dogalee idda donte idda yi uute nañu bokkuñ ñii ay weer lañuy jàpp idda ñii ay laab lañuy ñuy jàpp idda kon idda yooyu yépp yàllaa ko moom moo ko wàccee ñi nga xam ne ñooy tappale di bugg ci néeg sëy jàngul wala jigéen ñi tappale nga xam ne dinañu gis góor goo xam ne yaakaare nañu ko alal walla boog boroom diine la wala boog boroomu askan la wala lu mu mën a doon ñu dal di ubbi buntëb jalgati bunte boobu dal jalgati li nga xam ne mooy idda te xam ngeen ni idda sama borom ba da ko ormaal mbokki jullit ñi lu mu ormaal la looloo tax bu fekkee ne waa ji fase ne soxnaam sama borom ba nee na bu ñu leen génne fa ñu war a jàpp idda bu ñu génn te bu ñu bu ñu leen génne nañu toog ba idda ba mat kon loola dalay wannal daf la bëgg a jàngal ne la loolu dañ ko war a aar dañ ko war a ñoŋal sama borom ba subhanahu wa taala waaw kon loolu tey ji ci sunu biir sunu société ku ne xam na ne mu ngi toj lu bare ngi fi loo xamee ne du ñu ko wax si biti Ah, waxkat yi duñ ko wax waaraatekat yi duñ ko wax waaye ñu ngi gis ay doom aadama di dog iddab jàmbur di takk jigéen ci biir iddam te loolu dafa bokk min kabaa'iri zunub bàkkaar yi gën a mag ci bàkkaar yi ci la bokk nañu ko xamee noonu donte ñun toppatoowuñu ko sëykat yi sax jéemu ñoo xam lan mooy idda te ku jigéen ki koy jàpp war na koo xam kilifaam gi koy denc war na koo xam jigéen ñi bu ñu xoolee ci seen idda mën nañ leen a tàggale séddale leen ñett jigéen joo xamee ne mën nañoo ñëw labat leen labat leen leeralal leen labat gi maanaam dama la bëgg a takk mu leer wala boog nga gaaralal leen labat googu maanaam man kat temps yi damay ut soxna bu dee soxna si jàng nga ne dama bëgg soxna si jàng loolu moo di gaaral loolu nag dagan na ca sunu boroom bu fekkee ne ku jigéen ki ak nekkul ci buum ak jàmbur bu fekkee ne ku jigéen ki nekkul ci idda ñaar yooyu dañ ko ciy tënk maanaam dina dagan ndéem ku jigéen ki bokkul ci ñi yàlla tere nga tëkkaleen man ngaa ñëw nga labat ko ci leeral walla ci gaaral ndéem nekkul ci buum ak jàmbur na leer ndéem nekkul ci iddab jàmbur na leer am ci jigéen ñoo xamee ne mën nañu leen dagan na nga gaaralal leen ah li nga xamee ne moo dik labat gaaral waaye araam na nga leeralal leen ak labat ndax mbooleen jigéen ñi ci ni ñuy jàppe idda jigéen ñépp la yàlla araamal nga fekk leen ci seen biin idda di leen wax waxi sëy te loolu du dara ci ñun mu leer nañ ah dinaa yónnee samay kilifa ñu ñaan si la loolu labat gu leer la waaw mooy alxitba sariha moo di labat gu leer nañ nga wax ka muy wax gu leer bi ci des nag taariid la tudd mooy nga gaaral ka comme jigéen joo xamee ne dafa jàng alquran nekk ci iddam nga ñëw nekk ah ma day temps yëpp damay wër soxna su jàng alquran ndax mu di ma jàngal di ma dalal waaw mën nañ caa dégg ne da ko bëgg labat waaye mën nañ caa dégg leneen loolu mooy gaaral loolu nag ci benn mbir la dagan wala boog ñaar mooy ki nga xamee ne jëkkëram génn na àddina waaw jëkkëram génn na àddina kooku sama boroom ci alquran yaxal na ne ah may naa leen ngeen gaaralal leen ak labat wala junaha alaykum fi ma arradtum bihi min xitbati nisa aw aknantum fi anfusikum alima allahu annakum satadkurunahun walakin la tuwaciduhunna sirran illa an taqulu qawlan maarufa wala taczimu uqdata annikaxi xata yabluga alkitabu ajala waalamu anna allaha yaclamu ma fi anfusikum fahdaru kon yàlla nee ne bàkkaar waru leen bu ngeen fekkee jigéen joo xam ne jëkkëram dafa faatu na leer jëkkëram dafa faatu maanaam iddatul wafa nee na ngeen ñëw gaaralal ka nag labat maanaam man maay diw doomi diw wala temps yi yëpp maa ngi wër soxna wala temps yëpp maa ngi wër soxna si jàng alxuraan wala yu mel noonu loolu mooy gaaral mu ne dagan na wala bàyyi ma xel bu fekkee ne idda bi jeex na yooyu ak yu demee ni ki noonu moo di gaaral sama borom ba daganal na ka waaye nag ah bu leen kenn. dig sekkere wala tuwaayiduhunna sirran illa an taqulu qawlan maaruufa maanaam bu sekkere boobu muy wax mooy leeralal kaka dinaa yónni samay kilifa ñu jël si la ñu ñaan si la nee ne loolu bu leen ak ñoom lu dul ngeen wax wax ju jaadu mooy gaaral boobu may naa leen ko mu ne nag wala taazimu uqdata nikaaxi xata yabluxa alkitaabu ajala nee ne nag bu leen dogu mukk moytu leen bàkkaar bu mag la mbugal mu rëy mu ngi leen ci xaar ngeen dogu fas sëy ba te idda ba jeexul xataa yabluxal kitaabu ajala ñeenti weer fukki fan na jeex ñetti weer na jeex ñetti laab na jeex bu dee ëmbale na wasin bu kenn dogu li nga xamee ne maye la ci biir idda loolu moytu leen kë wala taasimu uqdata nikaax xatta yabluga alkitaabu ajalah yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam bu xon ne rufaya ne ka umkusi fii baytiki xatta yabluga alkitaabu ajalah ba jëkkëram faatoo mu wax ko mun ko toogal si sab néeg ba sa idda jeex takk ñuy door a waxi di may maye kon nag nañu bàyyi xel loolu léegi nag bu fekkee saay-saay bi wala boog bu fekkee ne moo ko tey ñu mën kaa tudde noonu jalgati na comme ni ko tappalekat yi di def tey dugg ci biir idda daldi labat ci biir idda daldi di fasab sëy ci biir idda daldi jël ndaw si wéet moom ci biir idda ñetti musiba daje si biir idda léegi lan la ci diine ji wax ah maxal ittifaaq am na maxal ixtilaaf am na mbooleem boroom xam-xam yi ijmaa la ñoom ñépp daje nañ ci ne sëy boobu dañu koy tas ca saasa bu ñu ko xamee sa saasa nañ ko tas ca saasa buñ xamee waxtu wuñ ko mën a xamee donte ginnaaw fukki at dañ koy tas ca taxawaay bi sëy booba dañ koy tas amul uute sëy boobu araam na ba yowmal xiyaam amul uute ne sëy boobu araam na waaye boroom xam-xam yi amaana ba fa ñu juuyoo mooy fan mooy ndax ñaar ñooñu nga xamee ne maye nañ leen ci biir idda ndax bu idda ba jeexee buñ leen mayee jébbale ndaw si idda ba jeex ndax man nañoo tàmbaliwaat sëy bi ginnaaw ba ñu katasee ah foofu la uju yoo gën li xew fii ci sunu saw jant bi di njuróom imam Malik moom la mu wax amaana bu mu laay gën wax fii mooy ne ñoom day dañu wax ne jigéen ji nga xame ne fekk nga ci biir iddam labat ko ci biir iddam waxu doyul nga takk ko ci biir addam doyul nga wéet moom wéetaayu ñaari way dencante maanaam jaxasook moom cib lal doyul ñett yooyu képp ku ko def ci sa biir idda nee na sëy boobu dañu koy tas benn waaye seen diggante même bu idda ba jeexee araam na ba yowmal qiyaama araam na ba yowmal qiyaama mënatu leen a ànd yéen ñaar ñooñu mu amalatan lahu bi di qasdi ñu jëflanteeg moom ci lu uuteeg li mu bëggoon man istaajala shay'an qabla awaani uqiba bi xirmaanihi képp koo xam ne yàkkamti nga mbir te waxtoom jotul la ñu lay jëkk a mbugale mooy ñu xañ la loola mu ngi mel ni ki nga xam ne dafa rey ki mu war a doon ki war a doon ki mu war a doon na nee na kat dama lay may kër sàngam ca almadi walla fële mu dal di yàkkamti dal di koy rey ngir doon na kër googu ñu xañ ko kër googu laa yarisul qaatil yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na ku rey doo doon kon nag lu tax mu muamalatan lahu bi naqidi qasdi aha kon ki rey ci tayeef kooku moom mënul doon ki rey ci njuumte kooku moom aha du doon na ca déye ja muy joxe waaye mën naa doon na ca alal ja kon nag lii ñoom itam lool lañu yaxal nee nañu seen diggante araam na ba yowmal qiyaama ñasa sa des wax nañu leneen kon bu fekkee ni labat na ko ci biir iddam moo xam idday faatu la moo xam idday weer la moo xam idday laap la lu mu ci mën a doon ndax idday weer it idday ku faatu mu ngi ci biir iddi weer moo xam iddab ëmb la bés boo ko ci labatee takk ko ci ñu jébbal la ko ci dañuy tas sëy ba ba noppi seen diggante ñu araamal ko ba yowmal qiyaam loolu mooy gërëm imam malik ak euh, riwaayaan ahmad waqalu shafii qadima kon loolu boo demee ci téere boobu nga xam ne moom la ñu ooy al muxaddima al izziya bind baa nga fa di ko jàngale ci daara yi mu ngi si yeneen téere wala yajuuzu nikaaxu fil iddati sawaun kaanat iddata wafatin aw talaaq mu ne wa yataabadu tahrimu fiihi bilwati fi l iddati aw baadaha wa yaxrumu tasriixu yoon ci jullit bi muy takka jigéen ci biir iddam nee na loolu araam na nee na yetta abadu tahrim nee na araame googu day deppetoo di continuer nag aha bil watti fil idda na ñu jébbal la ndaw si buñ la ko xësee jébbal ci pas-pas boobu ñu kafasoon pas-pas bu yàqu boobu nee na araama gi day continuer seen diggante nee moo xam ci biir idda bi la wala ci ginnaaw idda bi mën nañ la ko may man nga koo labat ñu may la ka waaye nga xaar ba idda ba jeex nga di ko door a jël ñun la déedéet benn la bu fekkee ni sëy ba dindiwuñu ko même boo xaaree ba idda ba jeexit benn rekk la ndax dindiwuñu woon sëy boobu te sëy ba newu fa sëy nag bu fa newul benn ah, benn atte mënu cee toftaloo kon nag benn la nit ki bu fekkee ne labat na ci idda takka ci idda ñu jébbal ko ci idda moo xam jébbal nañ ko si biir idda moo xam ginnaaw idda ba bu boobaa loola dañu koy araamal ba yowmal qiyaam seen diggante ñoom nag seen cëslaay fa mu jóge mooy Seydina Omar radiyallahu anhu dafa am ndaw si suñu wax Tulayha al Asadiya moom lañu joxoon ki nga xam ne mooy ah Seyd as-Saqafi waaw kon kooku dañ ka kamay may ci biir iddam ba ko Omar yëgee dafa tas diggante boobu ba noppi dóor ndaw si ay yar dóor ku góor ki ay yar bi mu defee loolu nag ci la ne ayuma mraatin nakaxat fi iddatiha fa in kaana allazi tazawajaha lam yadxul biha furriqa baynahuma summa kaana al axaru xaatiban min alxutaab wet gu jëkk gaaw ba mu leen dóoree ñoom ñaar dafa taxaw wax ak jullit ñi ne bépp jigéen joo xamee ne maye nañu la ci sa biirab sëy nee ne sa jëkkër ju bees yooyu ñu la may bu fekkee ne jotuñ la kaa jëppal maanaam jotuñu wéet ak moom jotul wéet ak moom wéetaayu sëy Omar nee ne furriqa baynahuma nañu taggale seen diggante ñoom ñaar nañu tas sëy boobu benn ñaareel bi bu fekkee ne tas ñooñu sëy bi comme moom waa ji jotul tëdd am ndaw si mu ne bu boobaa nag bu idda ba jeexee na bokk ci ñuy labat bu ko neexee gënu cee yey kenn waaw ñaareel bi nag mooy bii ñuy wax ni mu ne wa in kaana al axaru daxala biha mu ne furriqa baynahuma bu jëkk bi dafa ne furriqa baynahuma summa ataddat baqiyata iddatiha min al summa kaana al aaxaru xaatiban min al maanaam bu ñu mayee jigéen te jébbalewuñu ko ci biir iddam ñetti jeego la nañu leen tàggale maanaam nañu tas sëy ba ndaw si na mottali li desoon ci iddam jëkkër ji jëkk ñaari weer la am dal di tappale ñu maye xam nga dese na wenn weer bu fekkee ne ñetti weer la waroon a jàppa idda ñaari laab la am di tappale ñu maye ka dese woon na benn laab dafa ëmboon di ko làq moo ci dëggul kon loolu nee ne na mottali li desoon ci iddaam ñetteel bi nag waaju bees ji dal di bokk ci labatkat yi bu ko neexee kaña ñu ne bu fekkee ne jébbaliwuñ ñaareelu pàcc bi nag mu ne wa in kaana al axaru daxala biha ñaata moo ci war ñeenti mbir mu ne na baynahuma nañu tàggale seen diggante nañ tas sëy boobu summa summa taddat baqiyata iddatiha min al awal ñaareel bi mooy na mottali iddaam ci jëkkëram ju jëkk ji comme ñaari weer la amoon dal di koy bàyyi na dem iddawaat benn weer comme ñaari laab la woon na dem dolli si benn ak laab kon nag na mottali iddaam comme dafa ëmboon na dem ba wasin waaw ndax ëmb sax ku ne xam na ne araam na ci lislaam ñu di ci takk jigéen sang bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam nee ne laa tuuta'ul xaamilu kenn du tëdd ak yow feek imbi woo xanaa sa jëkkër waaye keneen déedéet mu ne man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fala yasqiyanna maahu zara xayrihi nee na képp ku gëm yàlla ak bés péncama bul nandal sam ndox bu ko nandal si too mbayam jàmbur bul fekk jigéen joo xam ne dafa yor ëpp ëmb moo xam si sëy la ko jële moo xam ci leneen la ko jële mu ne bul dem di tëdd ak moom bu dee njaaloo ki njaaloo ak ki njaaloowul moo ci yem bu dee sëy ki kii sëy boroom sëy bi moom mën na loolu waaye guddul kene bu dee beneen beneen waay boo xam ne ñëw na tagga manu manu loolu waaw njaaloo moom ñuy dégg ñu naan dafa war di jege ki ka ki ka defoon ba mu wesin musiba la loolu du waxi dara seytaane moo leen di gëm loo loolu di ko askane ci xam-xam loolu du xam-xam loolu du xam-xam kon nag Seydina nee na bu fekkee ne waa ji jébbal nañ ko maanaam jëkkër ju bees ji jébbal nañ ko ndaw si si biir iddaam nee na furiqa baynahuma nañ leen tàggale ñoom ñaar ñaareel bi mooy summa taddat baqiyata iddatiha min al awal ndaw si na mottali li desoon si jëkkëram a ah, idda jëkkëram bi ka jëkkoon a takk te texala ko am moo xam dafa faatu moo xam déet na mottali idda booba ñetteel bi comme waa ji jaxasoo na ak moom summa taddat min al axar bu paree ci ku jëkk gi léegi na jàppal idda ku mujj kii kooku nag moom lañ tudde istibra mooy day làpplu moog idda ñoo niroo waaye ndox mu yàqu la moo tax kazalika naka noonu fa mu mujje nag mooy summa laa yajtamiaani abada mu ne ginnaaw jéego yooyu yépp bu ngeen leen tàggalee tas sëy ba ndaw si mottali li desoon si iddaam si jëkkër ju jëkkër ja mottali iddaam si jëkkër si ñaar jëkkër ju mujj ji ndax tëdd na ak moom ba noppi aha mu ne summa laa yajtamiaani abada ginnaaw loolu ñoom ñaar mënatuñoo sëy abadan li des ci seen ak dund kon nag loolu atte la boo xamee ne atte bu diis la atte lislaam la itam ndax ci moom moomu la jóge donte am na ci leneen ci boroom xam-xam ñu wax lu uuteeg loolu waaye ngir artu ci suñu bopp artu ci nit ñi ñu moytu di dugg si néeg seey jàmbur di jalgati di toggoo ay baggaar yu màgge noonu ndax bii passé itam déggoon ngeen ah laysa minna man xabba mamraatan ala zawjiha aw abdan ala sayidi bokkul ci ñun képp koo xam ne dugg nga si néeg seey jàmbur di yàqa diggante boobu diggante jëkkër ak jabaram di war di yàq diggante boobu ngir mën a la labat ndaw si ngir mën koo takk yal nu yàlla jubal yal na nu yàlla teg ci siraatal mustaqim musal ci jalgati musal suñ jur njaaj musal ñu si tappale ndax bàkkaar yu barikat kat mbokki jullit ñi ci foofu lay jóge rawatina nag jabari jàmbur ndax dégg ngeen wal muxsanaatu mina nisaa ñi nga xamee ne ñoo nekk ci buum ak yàlla araamal na kenn kuy wax ñoom lu bokk ci sëy feek ñu ngi ci buum googu waa min al muharramat tahriman mu mu mu aqatan ah day bokk ci ñu yàlla araamal utal ko kon nag yal na nu yàlla defal jàmm yal na nu yàlla tënk ci ay ndigalam musal nu ci ay tereem ñu xoolaat néeg yi mayekat ñi mayekat ñi ci Sénégal yàkkamti nañu ni ñuy mayee ñu ci bari du noonu maye goo xam ne léeg-léeg doo xam ci ki ngay maye dara seede soo xam ne doo xam si ki ngay seede dara bu ngeen dajoon si mbedd mënoo xaa xàmmee kon yooyu mooy indi yu mel nii surtout jigéen ju sëy ba noppi bala nga kaa maye nag a teey jigéen ju sëyagul sax noonu kën nag nañu ñoŋal néegi sëy yi tey jikko yu ñaaw yi ñuy gis yu si baree bari yàlla moo xam waaye néegi sëy léeg-léeg bu ci jalgati gi am ci néegi sëy yi léeg-léeg waxuma toujours de waaye léeg-léeg mu ngi rax ci jukko yi ñaaw yi yal na nu yàlla teg ci siraatul mustaqim yal na nu yàlla nangul yal na yàlla borom ba teggil nu tiis wii ñu nekk muy mbas mi nga xam ne tey mu ngi yokkuwaat yàlla mën na koo delloo yàlla na ko yàlla dellool jëleel ñu ko fi si jàmm ñu bañ di ko ŋàññe ma fàttalikuwaat ñu bañ di ŋàññe mas mi li nga toog di ko ŋàññe ñaanal yàlla jële ko fi nga am ci aw yiw ah bu ko yàlla nangoon ñun ñëpp ñu jariñoo ko yàlla sunu borom ba subhanahu wa taala bàyyil nu fi sunu xalif Seydi Abdallah njaboot ak Seydina Aliou am ak xalifa yi l'islam bi yëpp yàlla na nu yàlla defal jàmm rabbana atina fi dunya xasana fi laxirati xasana wa qina azaban nar ya rabbi allah ya hayyu ya qayyum ya bati asamaati wal ardi ya zal jalali wal ikram hurmati la ilaha illa allah muhammadu rasulullah